jëleen leen sant euh, ci seen taawaay bi fii tey parce que man maa leen woo parce que dama bëggoon ñu bokk ay euh, ay document am na ay euh, information yoo xam ne buñ ko jotee kam dina tax askan bi gën a xam lan moo wundul problème bi ñu wax léegi problème comico dama bëggoon aussi fàttali ko ne que ci ci ci ci dossier boobu quartier musul jéem a disons def violence donc euh, deful ci kanam jiitalul doole maanaam pour pour régler ko quoi li xoon mooy ne que dafa amoon ay militaires yoo ne bi ñu liggéey dañ leen joxoon ay kër ñu dëkk ci bi ñu libéré ñu bañ ñu ne duñu dem après ñu daal def ay démarches tout ça ñu ne ñoom nañ leen jox terrain parce que ñoom ñoo fa dëkkoon et comme état dafay joxe ne leen ko jox donc entre temps comico bi nga xam ne dafa ne benn kuréel boo xam ne soldat ku nekk ku nekk quartier mun nga ci bokk pour am kër comico dafay ut ay ay ay programme partout bu rek Dakar rek ay Thiès partout dafay ut ay parcelles di tabax di ko jox soldats yi ci njëg boo xam ne bu doon Comico ñu bari duñu am kër donc Comico entre temps ñu jënd terrain boobu ci état bi bi ñu ko jëndee depuis 2008 minutes ñu ko jënd bi ko jëndee donc gars yooyu seen collectif bi ñu attaqué Comico devant la justice ñu ne pour que yoon niilal contrat boobu yoon ñu yëg di wàcc di yëg di wàcc ba yoon jox euh, jox dëgg comico ne leen lii yéen a ko moom jël ngeen ko ci anam bu amul benn werante mun ngeen jël seen àll léegi loolu bi mu amee ñoom ñu attaqué waat mais daal li li li li am solo mooy ne ko yoon jox na définitivement terrain yooyu comico léegi loolu bi mu amee comico jël huissier également ne leen na ngeen génn donc loolu moo andi déguerpissement yi da ngeen xam ne affaire depuis 2008 la et puis ñan war naa leen sànq benn këyit ñom ñep signé nañ ko ñom ñep signé nañ maintenant nag ku buggul gën ko gën lool motax euh lool bimu amé donc euh, ñu jël descos bi nga xamné mom mo fi taxaw lool moy liggéeyam après ñu génne leen te bi ñu leen di génne aussi génnewuñu soldats yi nga xamné ñom libéré guñu ñoñu ñu ngi nag seen kër ba léegi parce que libéré wuñu am nañ droit dëkk fenn. maintenant ñaareel affaire bi mu bëggoon mooy ne que ci 26 ci ci famille yooyu 119 famille yooyu maanaam juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent famille am na ci vingt 26 maanaam ñaar fukk ak juróom-benn ñoo xam ne am nañ ay kër ci programme comico yi dèjà am na ñetti famille yoo xam ne am nañ kër wakaam foofu en face am nañ fenn ay kër luye ko wan naa leen ko sànq jox naa leen tur am na ñeneen am nañ ay kër ci yeneen programme yi yëmbal wala comico donc ñooñu jël nañ seen kër loué ko ñooñu bénéficie nañ ci programme comico yi te léegi nag ne nañ fii nga xam ne comico daf ko ciblé pour seeni naataango yoo xam ne def nañ fa seen xaalis depuis ñi 10 ans quinze ans ne ñoom foofu lañ bëgg donc ñoom nee nañ comico loolu warul def programme foofu ñoom nañ leen jox terrain yooyu te ñoom 26 am nañ ci ay kër comico

sous-officier yi ak officier yi dama bëgg naa ne amul parce que comico bim talé def ay kër ba léegi def na 4825 manam ñeenti Juni ak juroom ñetti témèr ak ñaar fukk ak juroomi kër programme am yépp ñu xam ne terme sud Thiès golf partout ñeenti Juni. ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti kër ñaar fukk kër ak ak juróom ci loolu officier yi am nañ ci junni kër ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn kër sous-officier yi am nañ ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk. ak juróom-ñetti kër ak soldats yi militaire rang am nañ juróom-ñaari téeméer ak fukk ak benn ak juróom fukk ak benn juróom fukk ak benn te li ma fàtte aussi c'est que du soldats yi rek même personnel civil yi ñi nga xam ne parce parce que quartier am na ay personnel civil ñii di liggéey intendance ñii di liggéey matériel et cetera ñooñu aussi am nañ am nañ am nañ ci ci kër yi am nañ ci kër yi maanaam kuy liggéey quartier personnel civil ak ñeneen ñëpp donc ñii am nañ ci kër yi également donc loolu mooy firndeel ne que li ñuy wax ne comico dafa nekk fii pour cadre sous-officiers yi ak officiers yi ñu fàtte soldats yi loolu amul te aussi am na facilité yu yu yu yu yu quartier di def di encadrer nit ñi ba xam ne ku jóge mission ñu teete la encourager la pour que nga jël ni nga am nga def ko apport donc ñu ci bari maanaam boo jël actuellement tey fukki soldat yow gis ñu am kër juróom-ñett yi <laughs> comme ko moo tax ñu am kër. Euh, ci famille yooyu yëpp juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent am na ci ñaar fukk ak juróom-benn yu am seen kër ci comico yi ba pare loué ko te affaire dafa yàgg affaire depuis 2008 la woon 2008 nag koo xam ne yow bëgg ngaa génn. te surtout nga am fo dem nga am sa kër d'abord jël ko loué ko ci comico yi encore saa depuis 2000 kay ku bëgg dem xanaa euh, dem nga bu yàgg donc loolu moo tax maintenant nag li ñu wax te ñooñ boo leen fa bàyyee parce que am na ay père de famille aussi yeneen soldat yoo xam ne def nañ seen xaalis bu yàgg toog di xaar xamuñu ci seen condition la nekk peut être dañoo loué toog di xaar programme bi donc loo gën a yàgg rek ñii ngay ñii ngay ñii ngay euh, ñi ngay lor ñi ngay lor est-ce est-ce que ñi war nañ leen lor est-ce que yow di nga jël koo xam ne am na këram luwe ko ak kii nga xam ne amagul kër teg na xaalis di xaar bu fekkee dafa am koy dimbali kay da ngay dimbali kii jël xaalisam dugal ko di xaar waaye kii am këram kay mun na <laughs> mun na ko récupérer donc li ñuy wax ne Covid beeg tout ça là yooyu yëpp je pense que du argument yu taxaw parce que ñooñu. et puis ñooñu ay cadre ay cadre lañ parce que yàgg nañu liggéey amoon nañ lu ñu mën a ute kër maintenant nit aussi nag bu defee loo xam ne moom moo sàggan ba amul kër na wax dëgg yàlla nag liggéey pendant 30 ans 40 ans boo amul kër kenn tooñul